démb bërki démb gannaaw Bougane Gueye Dany groupe des médias tey dal na ci ki nga xam ni moo di ma jàmbal euh, Diagne ak euh, Avenir Communication groupe boobule euh, ñu koy toppee lu toll ci 91 millions ci 2021 ba ci 2000 2000 2022 naka ngay jàngatee loolu man li may njëkk a wax mooy homme d'affaires bu doon milliardaire wala millionnaire di liggéey téye fisc benn temps bi dangay nga ñàkk jom lu du ba lay leb Euh, eurobond wala mu leb euh, banque mondiale wala FMI wala yenn dëkk yi suñu mm-hmm. partenaires yi mm-hmm. mais li mu leb échéance bu tardee da daf dañuy teg pénalité mais boo bokkee ci lii diisal loolu ba fayuñ ko maanaam yow kenn ak yow Sénégal du fay ay borom mais yow fi ngay jaar di dem sa oto boobu fi nga koy dawal ci ay tali nga koy defar mm-hmm. nga ko dawal tali boobu ñun suñu suñu ay dërëm suñu ay impôts yi ñu fay moo koy moo moo ko defar courant bi ngay leerloo tey am na ci loo xam ne suñuy impôt moo ko moo ko defar ak yeneen ak yeneen ak xam nga lii gën man gis nga bu ma fekkee kuy taxaw di jéem a comprendre ay borom alal bu ñu redressé. Mhm. wala bu ñu nàngam nangam man dama naan la xamoo li xew man du ma gis ki feebar ba amul lu ko faj ndax ordonnance bañ koy kettal ci dëkk bi am na fi lu jeex. Mhm. Mhm. man may ñëw di yërëm ñooñu parce que problème bi mooy bu kooku defoon li mu war a def bala may dee ñu ne emploi mais yow état bu dajalewut impôt yooyu moom du mën a créer yeneen emploi ñeneen ñi duñ fayeeku yow nga dajale ñu ne la at sàngam nga di ko cumuler ak at sàngam est-ce que xam nga bu demoon bu mat 5 ans day après day nul maanaam bu ñu ko reglewul woon ba mu mat 5 mm, ans kii bi noonu nu mu koy am na délai de prescription bi la ñuy wax ci yu demee noonu. Mm. day nul état da ngay ñàkk ndax yaa ko war a lijjanti mais loolu ak caay-caay la beneen bi mooy xam nga tey bu ñu ne woon Feeling Dakar. Mm. dem fay impôt moom vingt ba nëgë ni muy fay impo ma jëmbal fayut. ñu ne la sans limite mi ngi fay ma jàmbal fayut mhm. ne la deux a ngi fay ma jàmbal fayut léegi ñu yegsi ba jamono Macky Sall dajale presse bi ne baal naa leen xanaa daa war a woo waa sans sans limite rappel leen maanaam li sans limite fayoon ci diire délai boobu yëpp mhm. mu delloo leen ko mhm. daal di ñëw fekk Feeling ndakaar li mu fayoon yëpp mu delloo bu boobaa lay doo ko maandu mais loolu taxul mu maandu sax na demaat ci commerçant bi nga xam ne yor na entreprise am na demaat ci tailleur bi nga xam ne yor na entreprise am lam fay ñëpp nañ leen delloo gis nga dëgg réew mii wax dëgg nag ñu bëgg laa wax naan la voilà. bu nangameeg nangam on l'assume du noonu lañ koy waxee noo tey président Diomaye bi mu fi taxawee lan la wax nee na lii dañoo toxal problème pour faje ko <laughs> problème mais lii du solution bi man naa nangu ñu ne parce que tamit man li ma gën a bañ mooy suñu euh, impôts yi ñu yemale te loolu daawul demee noonu. 18 pour cent yi ñu teg ci yenn yi wala dara yëpp ne yëpp a yem daawul demee noonu. Mm-hmm. am na produit yoo xam ne 2 pour cent lañ ko daan def comme daara de première nécessité comme meew wala yu demee noonu wala ndox wala courant sàngara ñu yokk ko ba 20 pour cent. ak yeneen yoo xam ne ay matériel de luxe yi. Mm-hmm. ñu def ko 20 pour cent yi doon 8 pour cent wala nangam nangam. Euh, bi ñu ñëwee ci jamonoy ab juuf ay jamono bi ñu bëggee xoj moo tax euh, waykat ba doon way naan bor yi moo ñu xoj. parce que bu ñu demee ba ku ñuy diri doo taamu fu sax ndong di jaar léegi yow effet bi moo lay dicté ñu la neex ne la nii nga may faye wala yokkal lii wala nangam na moo tax man wàdd parfois su ma ko fàttalikoo ci loolu dama koy naw xam nga lu tax yàlla nañ am président joomaay yàlla na gën téeméeri Abdoulaye Wade keneen kiy waat ci président Diomaye gën fukki junni yoon président Diomaye mm-hmm. loolu mooy dëgg mais dafa am loo xam ne bi ko fi banque mondiale waxee Wade ne ko fii nga mu ne ko déet yéen dama leen a yoreel wax leen ba ma fay leen mais nu may def ma fay leen seen yoon newu ci mm-hmm. mais dañuy ñëw ne la defee ko nii loolu moo ñu yóbbu foofu man naa nangu tey presse tey te loolu boo xoolee ñun suñu euh, àdduna ñun Afrique rawatina Sénégal niñ ko tëbbe woon da ngay gis ne aide à la presse ci ay maam moo fi amoon mm-hmm. la moo géewal xam nga lu tax ñu mën ko jox parce que dañoo jàpp ne taas bi nga xam ne moom lay yor mooy mm-hmm. taas bi la journal euh, état moderne yor mm-hmm. journaliste bi def loolu la géwél bi daan def moo tax tëgg daawuñ ko may lawbe daawuñ ko may mais géwal dañ ko daan jox dañ ko daan may mhm. du am na ci ñoo xam ne sa daawuñ ñaan mais daawuñ mu dara duñ ko soxla sax ba di ko ñaan mhm. mais dañ leen ciy fekk parce que taas bi nga xam ne moom la yoree ku leen ca mën a fekk dafa bëriwut suñ demee ci geer kenn du leen rey moo tax sa nga dégg gars yi naan géwal bu reppee ci xare lu mu jiin xeeb ko maanaam bal bee mooy dal la rek mhm. mais kenn du la kii muy sa no muy ki nga àndal muy keneen ki dañ la fay dégg journaliste est nañ ko rey ci xare kon xam nga ne kon ñun loolu bañ koy def ñun ba ñuy ba ñuy dund démocratie di xam ni état war a doxe lu mm-hmm. jamono yi yëpp tubaab bi moo ñëw jëlee fi man kon man bu ñuy def aide à la presse damay d'accord mm-hmm. parce que waxuma rek ci loolu mais ñun ci suñuy maam sax noonu lañ ko defee woon mm-hmm. awma problème boobu mais na gis nga bu ñu xasee ba wax impôt nit ñi dañu war a fay impôt taxaw fii di ko man moo tax gis nga ma dégloo El Hadj Ndiaye barki démb ñi ko invité nag lañ bëggoon mu wax ak la mu wax <laughs> moo tax waxtaan wi <laughs> loo wax rek ñu firi ko indiwaat débat bi mu teg waaye moom mu duut ko fa mu ko duut rek loo wax mu ne la sawaay impôt moom dañ ko war di fay wax ne dañ ma seet si woon parce que nangam ak nangam moo wax ci nangam <laughs> mais ba leen ko Macky saal di wax it nee na loolu amnistie ensemble moo koy def mm-hmm. parce que tamit dafa am prérogative yoo xam du président de la république décret du ko def amnistie am amnistie mooy la mooy lii Euh, nit ki faat nga kii ko nit ki yoreel la alal parce que réew mi la yoreel. te ensemble ñooy voté loi yi ñooy voté budget bi ñoo lay nattal ñoo lay contrôlé xam nga tey ñun suñu budget bi annuel bi ñu koy naan 7000 milliards. mais budget da ngay envisager ne ay à l'avenir nangam ak nangam ngay def. xaalis bi la ma jàmbale doon jox war a jox. boole woon nañ ko ci bis budget deux mille deux mille vingt et un bi moom lañ voté deux mille vingt décembre ba. léegi bu ko ma lan la ñuy def dañuy def li ñuy wax loi de finance. rectificatif. maanaam ah. noonu lañ koy def. noonu la de maanaam parce que matu voilà matu dañ koy daal di yoonalaat. <laughs> noonu la maanaam tey ngi mel ni nga ne 7000 milliards. baax na baax na fi bële paase nga mm-hmm. mooy mm-hmm. bu bi. Mm-hmm. décembre mooy bu 2023 bi. boobu moom nga defoon waaye léegi boo yeggul 6000 milliards nan ngay def. ah parce que maanaam amu fi. léegi da nga koy daal di ratifié waat mhm. wane na nangam amu fi daal dem lebiwaat ko feneen teg mhm. kon ñun ma jëmbal xaalisam boobu mu génnewul woon mhm. faussé na budget bi moo tax boo ko waree baal ensemble la war a demaat parce que même bu ñuy faussé budget bi ensemble ñooy taxawaat daal di voté ñu dolliwaat kon loola du yellul sax ci mag Sall gis nga même loolu sax daf leen a saaga ndey ba pare yow nga doon journaliste war a mën a xam loolu ba pare participer ci ku yoonal loolu maanaam ak njubadi nga kii ci Macky Sall mu far dóor leen moo tax lii gis nga ku leen wax ne fayut man nag nangu naa man saa wolof maa ngi ñaan président de la république. Mhm. bu mu leen ko baal waaye na leen yombal taawil leen ko waaye na ko wàññi xam nga tamit neexut nga war a fay luyaas trois cent cinquante mille. Mhm. borom kër gi daal ne ah comme koor la tollool weer wi daal weeru sell la weeru mhm. koor may naa la bul fay luyaas maanaam borom kër gi daaw boroom kër gi wax la ko wala boroom kër gi wax la ko. léegi nag. est-ce que buñ jékki-jékkee ne la ah ndeke da fay xam nga buñ la ko baalee mën ngaa jàpp mami mën na faa ñëw sax nga ne ko ah waay 30 mille lañ ni paaseel te alors que boo waroon a fay <laughs> luyaas bi <laughs> doo doo maye 30 mille keneen ñëw nga may ko cinquante mille comme loolu am na ba am na mm-hmm. nañ leen ko yombalal pour pour pour pour pour cette année ci d'accord mais nag wax dëgg yàlla am nañ fay de d'accord mami ci problème avenir communication bi ak Madiambal 91 millions yi mu a fay ci wàllum fisc waaw Madiame Balde wax dëgg yàlla problème bi mu am de problème mu fay la de te ñoom ñëpp war a fay <laughs> man moom euh, vraiment dama bokk ci ñi nga xam ne dañoo gëm ni dañu war a fay impôt parce que tout simplement euh, journaliste nekkul au-dessus de la loi <laughs> euh, journaliste également cest à dafa sénégalais la contribuable la comme tout le monde et puis ak fisc dafa am solo ci réew moo xamante ne bokk na ci liy doxal réew mi <laughs> wax naa ni sax ni ñi nga xamante ne dañuy jaay taabal ca marché ba dañuy daggub juuti kon nag wax dëgg yàlla Euh, bu ñu dee tasketu xibaar it war na nañu xam ne entre de presse entreprise de presse dafa ànd ak ay charges. Mhm. yoo xamante ne moo koy accompagner fay li nga xam ne mooy impôt ci la bokk. Mhm. waaw léegi nag ñoom dama yaakaar ni xanaa danoo defoon ne seen nguur du jeex. ndax ma Madiambal dafa bokk ci journaliste yi nga xamante ne dañ doon accompagner l'ancien régime le président Sall il n'était pas le seul bëri woon na ci ay morom mais daf ci bokk dafa fekk ni moom en tout cas moom Cheikh Yirimo ak euh, Yoroog ñu ci bëri ci ñoom cest ñu bëri dañ leen a euh, nawatul ci lu bëri mhm. mais cest à boo ko yóbboo sax ci orientation boobu mën nañu jàpp ne xëy na euh, dañoo nekk ci cadre fayonte ak état bi mais nag euh, gis nga nit moom boo taxawee moom di ko opposé wu ba kooku falu mhm. <laughs> attends-toi à ce que li nga amoon ci ay avantage lu bëri dootoo ko amati li nga xamante ne mooy ki la doon sàng sutura ak la doon muur Abdou mhm. Khadre dootu la sàng dootu la muur sutura léegi nag ci vas apprendre à te débrouiller tout seul mhm. voilà boo ci bëggee boole nag wallaay di def ay publication yoo xamante ne li yàlla xam doy na tamit mm. bu boobaa da gën a gasal sa bopp kàmb mm. rek ndax moom dafa jàpp ni boo koy lire ci ni muy bindee ay texte am sur X et autres que ne moom euh, vraiment dafa nekk benn cible boo xamante ne cible état bi te gëm naa ne ñi amuñu jot woowu mm. sax pour di nekk ci euh, boobule débat parce qu'il y a plus important à faire dafa am yoo xamante ne urgence la yu nit ñi di xaax ci ñoom mais xam nga nit moom wax dëgg yàlla bu fekkente ne sa suuri rafetul bu sa ciiñ rafetul bu sa ciiñ rafetul rek <laughs> loo boo jamboo ak boo posé ba ñuy musique bi tere sa ciñ du rafet rek waaw donc yow sa xel bu ñaawee rek yow da yaakaar ne ñëpp dañuy nekk ci même logique que yow mm-hmm. ce qui veut dire li lenn daal xam naa ne journalistes yi war nañ ci bàyyi xel te loolu c'est une demande bu ma leen di formuler mm-hmm. mooy ne gis nga taskatum xibaar mm-hmm. euh, ak nga nga féete ci parti di ci milité bokkul mën nga nag am ay idée nga di ko défendre mhm. loolu responsabilité qui que ce mhm. soit la président de la république mën na la xool ci cadre liggéey mu soxla la teg la ci wetam mhm. nga di ko orienter di ko conseiller wala nga gérer communication présidence bi waaye na ca yam am na yenn combat yoo xamante ne nii kenn waru koo xeex kenn warul nag mu nit di la utiliser di la xeexloo quoi que ce soit à moins que mu doon loo gëm wala lu nekk ci yow ndax àdduna bii euh, bul la boo xamante ne dafay wëlbatiku te bu tourné war na la fekk mu au moins sa toogaay rafet mhm. nga bañ a sàgganu parce que am na noo xamante ne ni boo ko defee rek pour ëllëg nga war batiku war a mën a liggéeyaat ci sa crédibilité ak ci sa image daf lay poser problème ci lu bari voilà te dafa bëri et fii ay patron de presse yoo xamante ne maanaam ñoo xam rek ñoom deal yi nga xam ne dañu koy di dañ koy séq ak gouvernement bi pour que mhm. yenn yi mu war a mën a passer crème yu mel ni ay impôt te pourtant ci wet wi autant ñu ngi koy négocier ci seen biir te la plupart d'entre eux wala ñu ci ëpp boo dee xool kër yéenekaay yi nga xamante ne moom moo fi nekk lu ci bëri condition travail liggéeykat yi baaxul doo am payoor gu baax doo am IPM ñoom sax duñu duñu duñu sàmmonte ak li ñuy règlement yi nga xamante ne moom la salarié salaire bi di demandé yëpp en tant que travailleur mmh. duñu respecter lépp lu jëm ci wàllu inspection du travail mmh. plein de choses yoo xamante ne mu ngi ci biir aide à la presse bi sa wolof di wax sànq ñaata ci ñun bi ñu nekkee ci ay média ba tey la aide à la presse ñëw patron ba teg ko ci table ba ne aide baa ngi nii liggéeykat da dégg rek mhm. aide ba moom ca kaw ca patron ya ñii liggéeykat ya ca suuf kenn du xam nu mu demee mhm. donc yooyu yëpp c'est des systèmes yoo xamante ne dañ ko war a bannir ci presse sénégalaise pour que image journaliste bi delluwaat fa mu nekkoon mhm. parce que ñu bëri na